barhamu baun waraun alifun thumma ha mi mun mujjël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu sëriñ bi di ko tey jii nag euh, ñi ngi doon def CRD CRD bu nga xam ne daf ñuy dañuy préparé gàmmu Medina Baye ñëpp xam nañ ni gàmmu Medina Baye bokk na ci événement religieux yu gën a mag ci Sénégal alors euh, tey jii nag ñu woon service état yi ndax président loolu la sant moom moo ñu wax euh, bu mel ni amee ala kulli na service état yi taxaw jàppale organisateurs yi moo tax ñu woo leen tey jàkkaarloo ak comité organisation bi déglu leen ñoom seen i bëgg-bëgg wax leen suñu xalaat euh, bi ñu waxtaanee nag am na ñu bëre yoo xam ni déggoo nañ ci.

indil leen tam ay compteur fexe ba extension du réseau am fii ci wàllu assainissement bu soobee yàlla lépp lu nga xam ni camion de vidange la ñu ko daan am dinañ ko am euh, toilette mobile ñu nga xam ne tam chaque année orange daf ñu ko daan yónnee bu soobee yàlla jàpp nañ ne ko am ren euh, dinañu mbale mbale mbedd yi ànd ci ak comité bi ak population yi doon ni mbalit ni rafetal yoon yi defaraat yoon ñi nga xam ne moom la ñu war defaraat ak Ageroute ba condition accès ak mobilité fii ci Medina Baye dina doon condition yu am maanaam dinañu fexe ba ñëpp ñi nga xam ne ay gan lañu yuy ñëw bu ñu ñëwee ñu sentir la teranga sénégalaise euh, tracasserie yi nañ ni incha allah ñu am lépp lu nga xam ni war nañ ko jël comme mesure dinañ ko jël. ba gàmmu gi ñu ci anam yi mu gën a rafetee selle li ci des mooy couverture sanitaire ñëpp dégg nañ ni temps yi am na benn feebaru dengue bu am suñu wet loolu nag dafa laaj réponse appropriée mooy euh, def opération de saupoudrage mooy def euh, traitement des gîtes larvaires mooy euh, setal mbedd yi mooy dindi ndox muy muy taal yi loolu lépp

ngir moom suñu ñaan dañaan yàlla defal ci loolu ki nga xam ne borom pays bi mari na bàyyi di Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahima Niass ñu ngi fii tey ci gan fii ci Medina Baye ci ndigal xalifa bi Mawlana Cheikh Mati Diagne Ibrahima Niass doon waxtaanee fukk ak waajal gàmmu Medina Baye édition 2018 aji nañ tey def CRD bi ànd ko yéen ànd ko ak euh, monsieur le gouverneur Kaolack ak euh, service yi mu àndat daanaka kenn desul ci service yi nekk Kaolack ñu nga xam ne loolu solo gàmm gi ci cahier de bi nga xam ne COMAF organisé gàmmu Medina Baye donc Ansaaru Diin ñoom lañ jébaloon préfet ak gouverneur pour ñu waxtaanee ko dëgg yàlla nag ñu fi dajee ba léegi eh, ñu ngi ci solo soosu ndax sëriñ bi itteem yëpp mooy nit ñi nekk ci jàmm mooy nit ñi jot ndox mu doy ñi am courant bu doy nit ñi lekk-lekk bu doy nit ñi dal dal bu baax ñi déglu xis sa yonent yàlla moom sama jikko yu gën a baax ñu dellu càmbar nañu point yëpp su ma toppee point par point dana bëri temps bi dana dem waaye xam naa ne daal li ci gënoon a am tuuti jafe-jafe bokk na ci ndox mi ak courant bi ak li nga xam ne moom mooy yoon yi nga xam ne sëriñ bi dafa insister ak bu wi ngir ñu fi dëkkee ngir yi ñëw ak bitim réew yi nga xam ne dañu fay bàyyeekoo di ñëw fii ci pays bi wax yàlla monsieur le gouverneur ñu ngi koy remercier bu baax yaatal na dënnam moo ngi ñu àndal service yi nga xam ne tamit ñoom ñoo si oote bi euh, ci liñ mën a wax ci turu leen attentivement kenn ku nekk ci ñoom wax nga wax joo xam ne daal wax ju dal xel la ci ñun ñi nga xam ne ñoo yore comité d'organisation bi kon duñ def lu may ñaan suñu borom mu jàppale ñu may ñu tawfiq may leen tawfiq parce que wax nañ ci suñ biir waxtaan ne du ñaari kër du ñaari ñaari dajee la bii état la bii ñi leen représenté yi ay service la ak COMOF bi organisé ànd ak Ansaaru Diin ñuy waxtaanee pour lu jëm ci pays bi ñii ay taalibe lañ ñu bëri ci ñoom ñii taalibe feneen lañ waaye boole nañ nekk lislaam ñun ñëpp nekk sénégalais pour fexe Medina Baye am li bëgg am satisfaction xalifa bi kontaan kon daal ci gàttal mën nañoo wax ne am nañ satisfaction ci li nga xam ne moom lañ déggee ci ñoom daan nañ ko wax at yi passé ñu ciy teg suñu bët daan na am ay rëq Euh, danañ ko seetlu ci daaw ak daaw daawaat surtout daawaati jéeg waaye ren incha allahu taala am nañ yaakaar ne xëy na bu fekkee am na rëq-rëq tamit niñ engagé wu ñu ak ñun tamit niñ beesalee suñ euh, engagement ñun ñi nga xam ne ñoo organisation gën a suufeel suñ bopp pour gën a euh, yokk yokk taxawaay mu jëm liggéey bi maak samay adjoint maa ngi di gërëm ñoom ñëpp ak mboolem membre yi nekk ci COMAF incha allah fas nañ yéene gàmm gërëm mucc ay bu baax baax baax ñu ngi yaakaar tamit ne engagement yi ñu jël Euh, ñu ngi koy suivre incha allah ne dinañ ko def ni ñu ko waxee incha allah. heureusement bu baax na am na ci loo xam ne nii euh, ñàkk xam la ak ñàkk yëg comme ni ko sama adjoint waxee sànq Cheikh Tidiane ma euh, ne lu ëpp ci santé bi waaye nag boo jiitee di tamit lu mën a xew rek. da koy teg ci sa loos parce que yaa jiitu yow yow yow yaay liggéey ba tax na kon incha allahu taala dinañ jël ay matuwaay yoo xam ne Euh, merci beaucoup donc des acteurs, du euh, nous venons juste de terminer la réunion consacrée à la préparation de Médina, réunion dirigée par Michel le de euh, qu'il a dirigé de main de maître. Donc, comme je l'ai dit dans la réunion, ce n'est pas des syndicats en face d'un État quoi que ce soit, c'est un comité d'organisation composé de membres du COMAF et des services techniques de l'État qui se réunissaient pour étudier dans quelles conditions ils doivent travailler pour que le seul objectif du calife qui nous travaillons, qui est que les gens viennent ici en paix, vivent ici en paix et en sécurité et rentrent chez eux en ayant la possibilité vraiment d'écouter dans les meilleures conditions possibles les récits qu'il va raconter sur la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour célébrer sa naissance, pour que vraiment tous ces pèlerins qui viennent vivre dans les meilleures conditions possibles et rentrer chez eux en paix. Oui, nous sommes très optimistes vraiment parce que ce n'est pas la première fois. D'abord, ne serait-ce qu'en faisant l'évaluation de l'année dernière, ça peut nous servir de base et d'hypothèse pour dire que nous sommes très optimistes pour l'organisation de cette année. Et mieux encore, les engagements qui sont pris par les chefs de service nous rassurent. Euh, comme je disais, euh, nous sommes avec eux, ils sont avec nous et ensemble, si nous conjuguons nos efforts, euh, si vraiment nous travaillons avec des cœurs ouverts, Inch'Allah, nous tous ensemble, on parviendra à réaliser l'objectif que le Khalif nous a fixé, qui est d'organiser vraiment un bon gamou pour cette édition 2018. Justement, des mesures de correction sont prises, euh, seront prises également. Et le, fait de rencontrer des difficultés est inhérente à la vie humaine, parce que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous apprenons de nos erreurs de l'année dernière, nous apprenons de nos difficultés de l'année dernière, et Inch'Allah, ensemble, toutes ces difficultés qui ont été soulignées ont été abordées en réunion d'évaluation du COMAF, parce que euh, j'allais dire que le COMAF qui porte l'organisation du Gamou est la voix des sans-voix on peut les appeler sans voix parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'adresser directement des demandes à l'autorité. Donc l'autorité peut ne pas être au courant de leurs besoins. Alors que nous, comité d'organisation qui vivons avec eux, nous sommes conscients de ces difficultés. C'est pourquoi nous avons porté leur doléance auprès de l'autorité pour qu'une assistance puisse leur être apportée. Parce que tout le monde sait qu'à Medina Bagnès et ses environs, tous les foyers sont des foyers qui l'accueil des étrangers à l'occasion du Gamou annuel de Medina. Ce n'est pas que les foyers des chefs religieux qui accueillent des, des, des étrangers, mais tous les talibés qui habitent Bay et ses environs accueillent leurs parents talibés qui viennent célébrer le Mawlid ici à Médina. waaw jërëjëf ndimbal boobu li ñu ci doon wax que dañ ne rek euh, dafa Médina Baye ni bindoo ont Médina kër yi yëpp ay dalwaay la ñuy du ñëpp te ñi seen loxo jotut seen gannaaw ñoom ñëpp amuñ kàddu pour ndimbal lu mel nii ñu sàkk ko ci autorité bi moo tax COMAF bi mu defee réunion évaluation gàmm gi xam ne loolu am na ñu porté ko ñëw wax ko fii ci kanam kilifa gi pour que famille yooyu noonu nga xam ne seen loxo dafa jotu seen ginnaaw ñu am lu ñuy dimbalanteeg ñoom parce que ay famille yoo xam ne ay ganu yonent bi sallallahu alayhi dañuy ñëw dal si foofa kon ku leen dimbale vraiment yaa ngi yokk sa liggéey ci bés bi nga xam ne ñu ngi koy def pour màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñu ngi ciy xaar délégation général parce que euh, moom lañ gis muy taxawee taxawaay bu mel noonu parce que service yi fi ñëw yëpp kenn ku ci nekk dafa am taxawaay bu ñuy xaar ci yow comme moom loolu état bi moom la ko dënk dëgg-dëgg moom lañ ci mun a xaar ci liñ xam ak xëy na keneen koo xam ne yàlla mën loo na la ko te nga mënon ci dimbalante ak jaamu yalla yi mënon ci dimbalante ak julit yi donte sax do état parce que nak état mënta def barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujël faydu tijan jox ñu ñuy